suuf yi ñu ngi bu baax euh, di la ñaanal yàlla aw yiw di ko sàkku ci yow xam naa la wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la yàlla yónni ci ñun jox ko diine jox ko alquran ak sunna mu ñëw jàngale ko ba mu leer ba nga xam ni bi muy dem la dañoo wax ne ñu taraktukum ala ma alal mahajjati albayda layliha ka nahariha dama leen a bàyyi ci yoon woo xam ne daal leer nañ ñi ni bëccëgam leeree noonu la guddim leeree yoon wu weex tàll bu amul benn taas euh, ahlu sunna wal jamaa yëpp comme ni ko al imaamu Shaatibi di waxee mooy ahlu sunna wal jamaa yëpp dëppoo nañ ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa lépp lu nit ñi soxla woon ci diine leeral na ko lépp lu nit ñi soxla ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa leeral na ko loolu moo tax ñun li ñu sant sàkku ko si mooy topp topp ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabiu min dunihi awliya borom bi nee na topp leen li ñu wàccee mu bàyyeekoo ci seen borom waaye bu leen topp leneen yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom itam loolu la ñu waxoon maa leen di bàyyee ñaar yoo xam ne fi léegi yi ngeen koy topp du ngeen sànku mooy alquran ak suma sunna abdullah ibnu mas'ud radiyallahu anhu dañoo wax ne ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufiitum topp leen waaye bu leen sos ndax dañ leen a jox lu doy kon ñun li ñu sant mooy topp mooy nañu topp rek yonentu bi sallallahu alayhi daal nañ ko topp rek fu mu jaar nañ fa jaar topp daal lañu sant euh, sa audio bi nag wax nga fi euh, lu mat sept minutes et quelque di fi wax say sartay tariixa ak say mbiru sëriñ yoo xam ne wax dëgg yàlla sax daanaka nit ñi daal ñu la ko woon waaye sa wax ji yëpp li muy firndeel mooy toujours rek dangeen di niroole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak seen sëriñ di niroole seen tarixa bi ak al islam ndax seen sëriñ moom daanaka ku amoon ay tumoxaat yu sori la ba nga da gis ne daanaka maqaam yu sufiyanke yi wax yëpp wooteel na ko boppam waaye toujours dafay lënkale boppam ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw daldi ne ruuxuhu tummidul anbiya wa ruuxi tummidul aqtaab wal awliya nee na ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy tëbbu yonent yi moom nag ruuxu mooy tëbbu awliya yi ak aqtaab yi ak yeneen wax yu bari yoo xam ne toujours da ngay gis ne dafay lënkale boppam ak yonent bi alayhi jël tariqaam di ko lënkale ak sharia euh, loolu nag yaa ngi koy wax mais lenn rek lay gën a firndeel mooy day gën a firndeel ne kon tariqa bi moom bi daa parce que bidaa mooy loolu maanaam bidaa mooy lu ñuy niroole ak diina sos ko ci biir diina ba pare niroole ko ak diina moo tax al imaamu Shaatibi rahimahullah bi muy taarif al bidaa daf ne al bidaatu tariqatun fi diini muxtaraa muxtaraa tudaahi charia yuqsadu bi suluuki alayha al mubalagatu fi taabudi lillahi subhanahu wa ci beneen bi mu ne yuqsadu eh, bi suluuki alayha ma yuqsadu bi tariqati charia mu ne bidaa day doon yoon wu ñu sos ci biir diine ba pare mu niroo ak diine mooy kon seen tarixa bi da ngeen ko niroole ko ak diine mu ne su ko defee jubluwaay yi diine am bidaa bu ñëwee même jubluwaay yooyu lay am diine la lay wax ay ndigale ki tere lu lu faraata lu ñu sopp lii boo ko defee am tiyaaba mu yóbbu la aljana lii soo ko bàyyee euh, am tiyaaba lii soo ko defee am bàkkaar ila axiri ci terexa bi moom itam lu mel noonu la indi kon loolu day wane ne rek bidaa la moo tax yi nga indi noonu yëpp li mu gën a fësal mooy kon lii bidaa la bidaa nag toujours dama koy gën a eh, faral di jegeel wax ne mooy faux billet rek gis nga faux lii tax mu mën a tromper ay nit mooy daa niroo xaalis mais su niroowuloon a xaalis duñ ci nax kenn mais dafa niroo xaalis dafay niroo xaalis bu baax waaye xaalis bu baax dafa am fu mu jaar ba ñu valider ko loolu moo tax mu baax foofu mu jaar ba ñu valider ko nag foobiyee jaaru fa moo tax foobiyee baaxut kon diine moom itam ci yonent bi sallallahu alayhi la jaaroon ba ñu valider ko loola mooy diine leneen li ñu tuddee diine te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ay saxaabam xamuñu ko woon loolu du diine foobiyee la te gis nga foobiyee man nga cee am lu baree baree baree baree baree baree bëri waaye amul njëriñ. nga amoon benn billet bu baax un milliard faux billet benn billet cinq cent bu baax ko gën moo tax Abdullah ibn Mas'ud a wax ne digg doomu ci sunna moo gën ëppal góorgóorlu ci ay bidaa parce que amul njëriñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun loo ci def sa bokku ci dañ la koy delloo kon faux billet la beneen bi mooy faux billet gis nga boo demee banque ñaar moo la mën a dal mooy benn ñu xam ne yow innocent nga ñu jéggal la nangu xaalis bi jéggal la wala ñu nangu ko mu ànd ak leneen ñu nangu ko mu ànd ak leneen waaye foo bii moom ku yóbbu banque moom leneen moo la ciy fekk lu bokkul ak faye ko diine itam nag noonu la diine ji yàlla nangu mooy loo xam ne nit ki da def mu sell mu jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi waaye créer ay bidaam yu bëri nekk di ko taaral ak di ci wax wax ju bëri yaakaar na ndax loola mooy mbir yi loola du mbir yi de mbir yi mooy topp alquran ak sunna topp yonent bi sallallahu alayhi loolu muy mucc te nee naa la ba tàyyi ëllëg ci sa biir bàmmeel moom moom lañ lay laaj de yi nga fi wax nii cheikh ak ko fu mëntu tudd ci nit ñi yàlla du la ko laaj yàlla du la laaj lu rut mooy sa borom noo ko doon jaamu wéetal ko laaj la maa kunta taqulu fi hada rajul la nga doon wax ci waa ji mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ lay laaj dina laaj keneen laaj la sa diina loolu mooy al usulu salaasa loolu mooy ñetti cosaan yi nga xam ne ku nekk war na koo xam xam ne dinañ ko ko laaj mu waajal tontu bi beneen bi mooy maa ngi la dégg mi ci sa biir audio bi nga ne euh, cheikh bu fekkee ne moom li mu wax da koo créé te léeg-léeg nit ñi dangay ngay dégg ñu naan amul xam-xam cheikh ma amul xam-xam ndax ndax bindul bindul ci xam-xam te waxul ci xam-xam jawaayul maa nii mi ko ko nettali wax dëgg yàlla moom xam-xam la fa nekk sori ko waaye nga ne kon cheikh ku ku ku ku ñaw la woon ku yeewu la woon ku am xam-xam la woon ndax nu mën a tëralee lu mel noonu léeg-léeg yàlla xam na ne damay am ñëwante ci yow ndax euh, cheikh dafa ñëw fekkoon fi ay turux yu ko jiitu mu fekk fi ay sufiyank yu ko jiitu yu amoon ay yoon am ay wird am ay bal moom ci boppam daa nekkoon ci ay tarixa avant muy sos tarixa boppam waaw léegi kay ku nekk ci ay tarixa xam na tarixa yi doxee bu yàggee bu ko neexee day sos bopp bu boppam rek ja moom itam modifié rek def modification rek te loolu ni mu amee ci seex noonu la amee ci ñeneen fii ñu bëri yoo xam ne seen tarixa dañoo nekkoon ci yeneen tarixa xëy mujj après génn ci kon loolu nekkul lu yéeme loo xam ne da ngay jàpp ni kii nu mu def ba teg lii déedéet beneen bi mooy yow boo demee ci jawaahirul maani ñaata lañ tuumaal Aliyu Harazim ne lu bëri ci jawaahirul maani da ko sàccee ci al maqsadul ahmad ñaata lañ ko tuumaal loolu lu bëree bëree bari lu nekk ci jawaahirul maani ne nañ dañ ko sàccee ci al maqsadul ahmad kon loolu kay bu fekkee ne loolu lu bëri noonu la demee kon kay daanaka indiwuñ <laughs> lu bees seen salaatul faatihi fu ngeen ko jëlee du waxu seex albikri moo ko taalif kon kay yow li ngay yéemee seex seex dafa dem jëli lu bari yu jàmbur ñëw indi dugal ci biir mbiram rek kay ay mbiram dugal ko ci beneen bi mooy dégg naa nga naan doo fekk ci tariixa tijaan loo xam ne dafay juyoo ak sharia subhanallah tariixa tijaan juyoo gum juyoo ak sharia moo tax ñu bari ñu ci nekkoon ba ko léegi nag yi ngay wax naan ay ku ko bàyyi ku ko bàyyi da nga toox ak da alku gis nga yooyu mooy naxaatiñ leen di naxee xam nga yenn eh, sufiyank yi ak euh, cheikh ak ñi mel ni moom dañoo yeewu maanaam bi ñu fexee ba créer ab tariixa dañ koy jéem a wutal ay ñekk pour léegi ñu ci nekk bu buñ génn waaw bu ko defee ñu ne la tariixa bi ku ko diingat nangam xataa sax boo ci nekkul bu ko diingat waaw yow daal ku diingat cheikh al ku ko ko di nangam nangam yooyu ñag la buñ koy ñagee rek pour maanaam pour nit ñi bañ ci génn wala nit ñi bañ koy attaqué parce xam nañ ne euh, tarixa bi moom ku toog xalaat taqiyuddin yi day wax ne bi mu nekk ci biir tarixa bi yenn saa yi daan na am mbir yoo xam ne day xalaat xam ne lii dëgg-dëgg méngoowul ak sharia mais nee na waaye léeg-léeg xelam danaan ko ah pourtant def nañ ko ci kanamu cheikh de parce que am mbir yoo xam ne kii toog di xalaat dana xam ne dëgg-dëgg mais nag yooyu ñu lay wax noonu moo lay moo lay xaw a tiital ba nga tax nga ciy def ak léeg-léeg yi ñu lay wax di la nappu euh, naan la naan la bul bul waxtaan ak ku bokkul ci tarixa ba yooyu yëpp da ngay gis ne ay mbir la yuñ teg yoo xam ne yëpp dañ koy teg pour lan pour mën a ñekk tarixa bi pour bëgg seen taalibe yi buñ ci génn loolu kese la du leneen léegi nag dégg naa ne ci sa biir wax ngay wax ne euh, cheikh waxul lu wuteeg sharia cheikh daanaka li mu wax maanaam li ci dëppoog sharia daa bëriwul moo tax damay wax ne waxam ñu waxam ji nga xam ne nettali nañ ko ko mu ne lépp lu ma wax lu ji dëppoog sharia jël leen lu ji wuteeg sharia bàyyi leen wax jooju yéen su ngeen ko pratiqué woon di ngeen bàyyi tarixa bi moom di ngeen bàyyi lu bëri ci waxu li li Cheikh wax léegi soo bëggee mooy di la ay wax yu bëri yu Cheikh wax keroog waxaloon naa la ci ay wax yoo xam ne xam nga ne loolu ju juyoo naa ak sharia te ñëwoo ci ba léegi newoon nga ma indil ma ko mooy di la waaye ba léegi ñëwoo ci ñëw nga fii taxaw ne Cheikh nee na mooy xaatimul awliya ñu laaj la lan mooy dalil bi indiwoo nga ne nga ne amoo ci dara ci alxuraan ak loolu lan la démb Cheikh Omar andil na la Cheikh nee na waliyu kaamil mën naa toogandoog ay naan sàngara di naan sàngara comme ñoom loolu juyewul ak sariya Cheikh nee na aarif day dem bay feeñal naan sàngara mooy yàlla njaalo fen te kooku aarif la te fekk la muy feeñal loolu da koy feeñal ci bit nii mais la muy def xayaal la nekkul loo xam ne lu am la mais da koy def ci bit nii rek pour nëbbee ko maxaamaam yow Cheikh li mu wax ci ay toj tojali tooxi doone yàlla rek xam nu mu toll nga taxaw naan Cheikh waxul lu wuteeg sharia sëñ bi Cheikh mu wax lu lu wute lu lu ñàkk wuteeg sharia moo tax ñu ñu bëri ñu bokkoñ terax ba ko ba ko moo tax ñi koy dal di ko dal ba ca ay mbokki sufiyankeem tey boo demee ci ku mel ni Ibnu Mayaaba mi ngeen di dégg muy Mouhamad Khadir Ashinqiti kooku ab sufiyanke la <laughs> mais gis nga dafa bind téere di dal Cheikh alxumaar yi almaghribi Maroc sufiyanke la mais dafa dal seex kon seex moromi sufiyanke bi sax dañ ko doon dal parce que xam nañ dafa indi loo xam ne kenn mosu wax lu mel noonu li mu indi mu wuteeg charia ak a bëri bi yow foo nekk tey sa audio bi li nga ci wax ne dangaa gis ne ñuy woote ci ahlu sunna wal jamaa dañuy trompé nga wax ay wax yu bëri ne salafu saalih noonu lañ doon doxee wa alhamdulilah yow xam naa ne war ngaa gën a gëstu waaye itam nag doxalu doxalinu salafu gis nga am saalix dañoo bokkoon ñoom ñëpp nekk ci benn pas-pas donte la man nañoo am tuuti wute ci buntu fiq yi ak yenn furon yi waaye buñ ci wute woon itam wute wuñu woon ci pas-pas yi waaye ànd ak loolu yëpp liñ àndoon noonu yëpp noonu lañu ñu bañee woon bidaa ba ñi nga xam ne ñoo sos bidaa dañoo am ci ñoom taxawaay yoo xam ne sax damay wax ne bu fekkoon ne ñu mujj ñi amoon nañ ko amaana konoon yenn bidaa yi tey fi yegg lu mel ni seen bidaawu tarixa bi fi mu yegg du fa yegg ndax xam nga ne tey doo dégg ñaare kuy toog wala bu amee bariwut kuy toog di askanoo naan man ab jëx mii wala kuy toog di man ab xadari laa xam nga lu ko waral mooy ñooña ba ñuy feeñee salafu saasi dañoo teel a rëq seen digg ci jamonoy saxaaba ya la am ay nit ñu commencé feeñal bidaa xawaari yi ali ibn abi talib abdullah ibn abbas jàmmaarloo ak ñoom ci xam-xam ak ali sax jàmmaarloo ñoom ci bañ ñëwee ne dañuy xeex waaye ci jamono abdullah ibn omar nga xam ne xadis boobu nekk ci sahihu muslim muy xadis omar ibn alxataab bu siiw boobu xadisu jibril baynama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam istala alayna rajulun bayaadi saw bi ba xadis ba jeex xadis boobu xam nga lan moo bokk na ci li sabab Abdullah ibnu Omar nettali ko wala ne déggee na ko ci baayam xam nga bokk na ci li ko sabab mooy dafa am ñaar ñu bayeekoo woon defe naa côté Hara xamatuma côté yee lañ bàyyeekoo ñëw di ko wax ne ko dafa am ñu feeñ ci suñu gox ñoom dañuy wéeti dogal Abdullah ibnu Omar nett leen xadis bi ba pare ne leen su ngeen demee ngeen leen Abdullah ibnu Omar nee na dëñ na ci yéen ba set wecc noonu la salafu saay doon jëflante ak waa bidaa Gaylaan ibnu Maslama al-Xadri ba mu feeñee dañ koo radd jox mum nu safwaan lu jox mum jox mum nu safwaan sax sëriñam ba jax du na dirham ba mu feeñee dañ koo radd waasil ibnu ata mi feeñe tasfu mu'tazila doo doonoon dongu ci alxasanul nga ba mu feeñee di wax euh, masalaam yooyu ñu ñu ñëw laaj alxasanul basri benn wax waasil dal di ñëw ne day tontu dugg ci ay biddaa xasan da koo dàq kon salaf saalih ñi ngay wax ne ñoo yërmante woon noonu ñoo bañoon bidaa ba nga xam ne ku ci mos a tàbbi dañuy gàmmaarlook yow jox mum nu safwaan ak ñeneen ak ñeneen ci ñoo xam ne ay mubtadia leen ci jamonoy salaf te léegi-léegi sax boo xooloon dëgg-dëgg ñooñu lañ wax li li Seex Tijaan wax ko gën a garaaw maanaam jox mum nu safwaan da doon wax ne ñoom dañ doon wax ne yàlla amul amul ay melokaan ñoom loolu lañu doon wax wala ñu ne eh, yàllaa ngi fépp maanaam yàlla nekkul ci benn bërëb loolu yéen yéen na ngeen koy wax ñoom dañuy wax ne yàllaa ngi fépp ak yeneen yi ñu doon wax al alquran maxluuq yu mel noonu borom xam-xam yi taxaw jàmmaarloo ñoom jàmmaarloo yu sax sàpp lañ doon wax waasil ibnu ata lam doon wax yàlla xam ne ne boo ñëwoon ci li li Seex Atijaani wax ñooñu waxuñu ñooñu waxuñu asaka ji maanaam ki ñëw waxoon naa la ko keroog ki ñëw wax ñu ne ñu aarif day dem ba nga xam ne dafay gis comme ni ay gisee di dégg comme ni yàllaay déggee ak déggam day yaatu comme ni déggu yàlla gi yaatoo ak gisam noonu day gis min ars ilal farsi ki wax nañu képp kuy jaamu xërëm di sujjóotal kulul yàlla yàlla lay sujjóotal sëñ bi wax ji moo gën a garaaw fépp ñi xërëm nga ne ñu ñooñu xërëm ba yàlla moo ci feeñ moo tax ñooñu yàlla la ñuy jaamu yàlla la ñuy sujjóotal sëñ wax yooyu gën a garaaw kon gis nga asalafu saalix goog ngay wax taxawaayu diis lañ amoon ci waa bidaa ba nga dégg Fudayl ibn Iyaad doon wax naan képp ku respecté waa bidaa yaa ngi dimbale màbbu lislaam ku toog ak waa bidaa yaa ngi dimbale màbbu lislaam loolu lañ doon wax wax ay wax yu bari yoo xam ne da doon wane ni ñu bañee bidaa kon booy wax seen yërmande gi di wax seen baax gi di wax seen jubóo gi boole waale ci ni ñu bañee woon lu bon ak bidaa ba tax na lu bëri ci ay mubtadi'a dañ leen naa def ay rudul yoo xam ne ci seen téere yi da ko ciy fekk bal téere yu bëri yoo xam ne dañ koy rek taarif dañ doon radd waa bidaa raddu alal jahmiya bu imam ahmad euh, daarimi radd bisrul maris yi ak ñeneen ay yeneen téere yoo xam dañ ko bind ci salaf ngir radd ñi nga xam ne ñoo indi woon ay bidaa ñooña ngoon ngay wax noonu ci salaf bu ñu fekkee woon Cheikh Atiyaani mu wax li mu wax dañ ko wax lu raw lañ doon wax jax mum na safwaan danañ ko wax lu raw lañ doon wax waasil ibnu ata danañ ko wax lu raw lañ doon wax xeelaan ibnu maslama alqadri danañ ko wax lu raw lañ doon wax ñeneen ñi beneen bi mooy gis nga bennoo ak jullit ñi day tegee ci dëgg naxante loo ci tabax itam du yàgg maanaam boo ci defaree dara itam du yàgg du am mucc boo bëggee dara mu yàgg taxaw day tegee ci dëgg gis nga jullit ñi pour ñu bennoo dañuy bennoo ci la benn la woon saxaaba ya loolu moo leen loolu moo leen mën a benn le la benn la woon saxaaba ya loolu moo mën a benn le jullit ñi waaye leneen luñ fi indi jàpp ne day tax jullit ñi bennoo bëgg koy teg ci ay naxaateeg ay kenn ku nekk na respecté sa morom bul ko bul ko wax dëgg sëñ bi loolu du bennoo parce que ñun dañoo teqalikoo ba pare sëñ bi ku gëm ne ku gëm ne xaj beeg mbaam mi yàlla la man ma gëm ne loolu kéeféer la ñooñu sëñ bi buñ ne dañuy bennoo dañuy naxante rek mënuñoo bennoo bennoo des koy teg ci dëgg te gis nga bu ñuy bu ñuy bu ñuy waxante dëgg bokk ay gëm-gëm maanaam bokk gëm-gëm nga xam ne li ñu gëm parce que bennoo ji lu ñu daa war a tegoo ji dañuy bokk suñu suñu gëm-gëm bokk waxdatul qudwa bokk ku ñuy roy mu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waxdatul masaadir tashriya ñu bokk fu ñuy jëlee diine muy alxuraan ak sunna gis nga yooyu suñ ko bokkee <laughs> leneen li daanaka wutee ay déggin du am problème gis nga saxaaba yooyu ñoo ko bokkoon ñoo bokkoon waxdatul xaaya ñoo bokkoon benn objectif lañ amoon mooy liggéeyal diine bokk gëm yàlla subhaanahu wa taala lépp loo xam ne tawxiid la wéetal yàlla ñu gëm ko duñ dugg ci bokkaale waaye bokk gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko muy seen royukaay ñu yëg ne moom dong mooy royukaay bi nag keneen ku dul moom mën ngaa wuteeg moom waaye moom moom kenn warta wuteeg moom ñu bokk gëm ne ñoom ñëpp fi ñuy jëlee diine source bi fenn la mooy alxuraan ak sunna waaye bu fekkee ne yow da gëm ne yow seex su diine la man ma gëm ne seex du su diine nuñ mën a benn waaye yow bu dee waaj benn waaye gëm ne ne yonent bi sallallahu alayhi di ko wax diine man ma gëm ne loolu léeg-léeg di ko wax nii wax ko ci làmmiñ yomb na mais réalité bi koy weddi suufi euh, xaqaayiq yooyu ngay wax te nga ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nekkoon man de lépp loo xam ne danga ma ne ma yonentu bi sallallahu alayhi wa ci la nekkoon te nga indil ma ay firnde yu leer fas maa ko yéen a jël waaye seen tariixa bi moom ndax ma ci indiloon ay firnde yu leer yow bañ nga ko ba yow xaq yooyu ngay wax biñ la laajee am na ci yoo xam ne biñ la laajee fañ la ko dina wax da nga ne ay dalilam kon ni kon yan xaqaax la gis nga yonentu bi sallallahu alayhi wa li nit ñi soxla woon da koo jàngale ba mu leer lépp lu nit ñi soxla ci diine yonentu bi sallallahu da koo jàngale ba mu leer yonentu bi sallallahu alayhi nëbbul dara lu nit ñi soxla jàngoon nañ ci mursid mu xaalun alayhimul kadir wal manhi ka adami tabliq ya zaki ab yonent bu ñàkk a jottali kon li nit ñi soxla jottali na ko waa léegi kay comme da ngay ñëw naan ma ay góor yàlla yi ay xaqaayiq lañu indi waa d'accord léegi xaqaayiq yooyu kay ñun royloo wuñu góor yàlla yi dañoo royloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nee nga moom xaqaayiq yooyu moom moo ci jiitu indil ñu ko rek bu ko defee nga ne ñu yooyu man de lépp lu ma xam ne lii ci yonent la wér bàyyee ko fas naa ko yéene jël ma yàlla ma xam ne lii ci yonent bi sallallahu alayhi wa lu wér bàyyeekoo wér ci moom ma koy delloo ndax ab imaam ahmad ne woon na man radda xadiisa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa ala shafa halaka képp ku delloo xadiis yonent bi sallallahu alayhi na xam ne mu ngi ci buntu tuñum safara mu ngi ci buntu kàndu kàmbum alkande al imaamu Shaafi'i bañ ko waxee benn xadiis benn waaye ne ko ndax da nga ko jëfee dana ko ndax danga maa gis ma génnee ci ab église bañ naan ma yonent bi sallallahu nee na nga naa ma ndax ndax ko jëfee kon lépp loo xam ne yonent bi sallallahu mu ngi ci woon ñun loolu la ñu fas yéene dund léegi nag boo ñëwee dañuy wax nag nañu ay xaqaayiq te yow bi nga koy wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga njëkk a tudd na nga fexe indi ñu loolu rek boo ko indee rek bi insha allah buñ xam bu dee xamuñu ko woon dañu lay wax jëri jëf ci xamal gi ñu ko xamal fas ko yéene teg suñu kanam mu bokk ci li ñuy jëfee loolu dong la ñuy beneen bi mooy yi ngay bëgg a dëkkëralee seen tereexa nit ñi ci nekk ay xawma fu ñu toll ci ay niveau yooyu wax dëgg yàlla dafa doyut pour dëgëral am mbir dafa doyut pour dëgëral am mbir xam nga diini ji moom lépp luñ ciy saxal da ngaa war a am dalil minal kitaabi wa sunna minal adillati charia mais pas rek nga naan ma diw moo koy wax walla diw moo koy wax wala yu mel noonu loola boo ko waxee daanaka amul njëriñ beneen bi mooy di wax ne euh, cheikh ci boppam yonentu bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jox tariixa bi wax dëgg yàlla ñun buñ gëmoon ne cheikh yonentu bi ko jox tariixa bi kay konoon wax dëgg yàlla duñu am problème waaye yonentu bi sallallahu alayhi wasallam digganteem ak cheikh junne at ak téeméer ak nangam moo ci dox <laughs> léegi nan nan ngeen ñu mën a gëmloo ne yonentu bi sallallahu alayhi daf fi ñëwaat di joxe ay tariixa loolu ci boppam moom moom moo moom moo moom moo dëppoowul ak diine te neewoon naa la borom xam-xamu lislaam yëpp dëppoo nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam du joxe waa diine ndax diine ji ko ba mat même atta ñi wax ne des koy ci gént sax dañ ne boo ko daf lay bégal wala mu lay loo xam daa amaana sa mbirum bopp la wala amaana leneen loo xam ne mais du nekk loo xam ne dañ naan lii ab atte diine la wala ci diine la bokk loolu borom xam-xamu lislaam dañ cey dëppoo kon li ngeen di wax du waxu dara yooyu moom wax dëgg yàlla ay daawaale rek waaw a suufi waxal xam-xam te neen yi nga nekk ñu di ko wax beneen bi nag mooy yow xam naa war ngaa war nga di déglu bu baax xayaatu saxaaba ak xayaatu taabiin ak euh, dund borom xam-xam yi lislaam yi balaa cheikh di ñëw amaana ko noonu la yéem ci cheikh yëpp da gis lu ko gën a yéeme beneen bi mooy bu fekkee li ngay wax ci cheikh mi yëpp dëgg la waa léegi ana jeexit yi jeexit loolu anamu lan la bind lan la fi indi lan la fi bàyyi ci xam-xam xam nga tey al imaamu yi boo ñu waxee ne ñu ah moom de teel naa mokkal alquran teel naa doon borom xam-xam bal bi muy faatu amul ñeent fukki at ak juróom boo ñu ko waxee buñ la laajee waaw moom lu mu fi bàyyi da ngay nañu moo bind riyaadu saalihin moo bind arbaana nawawiya moo bind al majmu sharhul muhaddab moo bind al minhaj sharhu sahihu muslim moo bind rawdatu talibin moo bind al azkar al adab fi hamalati at tibyan fi adabi hamalati al quran ak yeneen ak yeneen ak yeneen da nga ñu wax ne ñu moo fi bind lii yëpp ñu xam ne ah kii kat kon li nga ñu wax li yeenu maanaa la waaye cheikh lu mu fi ba lan la fi cheikh bàyyi ci xam-xam lan <laughs> suuf yi da ngaa suuf yow yi ngay def nii maanaam li Cheikh Moustapha di wax saxalul dëgg dàqul ak dàqul ak neen gis nga borom tarixa yi ku nekk ci ñoom wax na ay ngëneel ci tarixaam wane ne tarixaamu su tarixa yëpp comme ni ko Cheikh defee maanaam yow yaa yow yow mi bokk ci tarixa Cheikh yow yaa gëm ni Cheikh wax jàpp ne tarixa Cheikh benn suru ko mais ñeneen ñi dañoo gëm ni seen tarixa su tarixa Cheikh yi ngay wax ni wax dëgg yàlla du ko dara beneen bi mooy li ngeen di wax ne yonent bi sallallahu alayhi moo leen jox seen tariixa bi ñeneen ñi di ko woote woo loolu day gën a leeral ne yonent bi sallallahu alayhi joxul leen ko ndax cheikh nee na yonent bee ko jox borom wirdu maaxuus moom itam nee na yonent bee ko jox boo demoon ci ñeneen nee na yonent bi sallallahu alayhi moo leen ko jox waaye léegi yonent bi sallallahu alayhi moom daa ñëwoon di préparé nit ñi walla kenn ku nekk yor sa mbooloom bopp di woote ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ma jox hada akbaru dalilin ne ala anna hada al amr lam yati min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bal huwa bidaatun muhdasa maaxudun min xayaali sheytaan aw min awhaami sheytaan laa min indi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam eh, non suufi suufi léeg-léeg danga may danga may reeloo nag waaw salaatul faatihi li nga ci wax noonu Cheikh ko wax de bikiri waxu ko de <laughs> bikiri waxu ne noonu noonu la ko salaatul faatihi ñëwee de moom moo taalif ab salaatum ñaata nga gis ci ay nit ay boromi xam-xam ñuy def ay siyaxu ay salaatu taalif ko bikri yi mosul wax ne moom dafa duggoon xalwa génn nangam ak nangam loolu loolu cheikh moo ne salaatul fatih bokkul ci taaliful bikri yi mais bikri daa dugg xalwa doon ñaan yàlla mu jox ko salaatu bi gën yàlla yebal malaaka ñu bind ko ci alaway leer mu indi ko loolu waxu cheikh la <laughs> bikri yi ma taalif ma taalif salaatu bi moom waxu ko woote woowu ko sëñ bi loolu bu fekkee am na lu muy wane li muy wane rek mooy seen waa doy na waar. waaw sëñ Issa sëñ Issa bàyyil dof dof lu gi yow xam nga ne tasawuf dañoo jàpp ne seen sëriñ si lañ leen di xetli surtout ci tariixatu tijaaniya te boo bëggee ma indi ay preuve yu bari ñoo xam ne bu ñu jàqee dañuy dem xetli ko ci seen sëriñ nett ci ay xikaayaat ci seeni téere sëñ bi yéen loolu ci lañ leen yar Cheikh Omar Fouti nettali na lu mel noonu ak ñeneen ñoo xam ne sax ci biir a tiijaan bu ñuy ñaan dañuy ñaan seex di ko woo loolu la ñuy jàngal mutasawwifoon yi mooy bu ngeen amee problème de dee leen dee leen woo ñeneen ñeneen ñu dul yàlla loolu moo fees yàlla te li ma lay wax boo ci bëgg ma indi la ci biir tarixa tijaan beneen mooy histoire bi ma lay nettalil ki ko nettali sëriñ bi mu doon wax mooy sëriñ bi nga xam ne da ngay dégg gàmmukat ko wax ñu ne bu rusul woon ku ko woo ci foto la loolu la ñuy wax ñu ne diw moo ne bu rusul woon bàyyam ko ko woo ci photo mu wuyu la sëñ bi photo li ay këyit rek nee na photo waajooju la woon foto sëriñ boobu te loolu réalité la am na loo xam ne da koy jéem a weddi mais réalité la maa nag di wax naan euh, li ngeen di def tarixati yaa ngi sunna la jëfee alxuraan la loolu moom sa waxi bopp la ndax alxuraan moom boo ko doon jëfe doo wuteeg ñeneen ñi li la tax a doon tiyaan ndax yooyu nga tudd muy inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi ci kan la wàccoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom daan na ko jëfee moom de bu fekkee daan na ko jëfee mosul jàng salaatul faatihi wala kon boobu moom da koo jëfeewul woon sëñ bi baxal caaxaan gis nga tisubaar ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jullee nga koy jullee boo ko julleewul noonu amoo julli kazalika yeneen yëpp nag jaamu yàlla yëpp noonu la moom moom mi ko yàlla wàcce woon yónni ko ko moom la ko jàngal xamal ko mu ñëw di ñu jàngal nuñ koy defee kon xoolal nam ko doon defee mboolem aaya boo fi jàng wala hadis rek ci yonent bi sallallahu alayhi la wàcc te moom moo ko njëkk pratiqué waaw sansa gis nga li ngay wax noonu mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp ne buñ jekkee ci jafe-jafe wala sax léeg-léeg wala xikaayaat yooyu ngay gis gis nga yooyu ñi koy nettali ci awaam yi ci sëriñ su mag sa lañ ko jëlee liñ naan naar bu mbax naar bu ndaw ba lu mu wax ca gàdd ga la ko jëlee wala ca bergell ba la ko jëlee ni ko gaa yi waxee gis nga seen sëriñ si mag si ñoo wax lu mel noonu Cheikh Omar al Fouti xanaa ko moom du du ab du ab am de déglu ma nettali la xisa bi mu nettali nee na dafa am kuñ doon wax Umu Ahmad al Kabir dafa amoon méttitu biir bu ko doon dal te nee na soxna suusu ci moom la jëlee woon tariixa ci moom alfuuti yi nee na ci la jëlee woon tariixa tijaan nee na bi ko métit piir woo dalee nag muy woote naan yaa abda xaadir nee na ndax kooku ab xaadir la woon avant muy doon tijaan léegi nag comme nam ko aado woon di def ba mu nekkee ca xaadir ga mooy bu amee jafe-jafe Cheikh Abdou Xaadir Jilaani lay woo gannaaw bu mu nekkee tijaan nag mu am métit biir wu ko dal nee na muy xeetli ko Cheikh Abdou Xaadir Jili naan yaa abda xaadir nee na foofu rek mu dal di gëmmentu nelaw yi woyof dal di ko fay fekk am ko ko mu dégg ko koy wax naan ko bàyyil di woo Abdou Khadir waaye del woo yaa dal wax yaa Ahmada Tidiane lii de pourtant Cheikh Omar Fouti moo ko nettali mu ngi ci arrivant ndax lii moom waxoon am la sëñ bi ci bokkaale gis nga lii taqiyuddin al hilaali di wax naan ashirkul akbar daa nekk lu lu lu fës ci tiijaan yi te moom mi koy wax ab tiijaan la woon de daa nekk lu fës ci tiijaan yi waaw saxen xam nga lii day wane sa tappale gu bëri gi xam nga lii day wane ne tappale ka dëgg mooy yéen yow yaa fi wax sànq nga ne waaw man sax gis naa ay nit ñoo xam ne eh, xaw ma photo bu ñu wane pare-brise bi naa nga wax wax bëgg a wane ne loolu ñi koy wax mooy ñi xamul ci yéen ma indil la wax boo xam ne ki ko wax mooy Cheikh Omar Al Fouti nga changé discours naan ma waaw xam nga ne loolu day war ne Cheikh bokkul ci subhanallah mooy li ma lay wax parce dañ leen a mooñ ci bokkaale sëñ bi ñaan kurul yàlla même attaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo ko ñaanoon loola kéeféer lay doon borom bi nee na wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmi alqiyama wa hum an duaa'ihim gaafiluun wa idaa hushira annaasu kaanu lahum aadaan wa kaanu bi ibaadatihim kaafiriin yàlla nee na ana kan moo gën a sànku kuy ñaan ku dul yàlla koo xam ne du ko wuyu ba yowmal xiyaam yàlla nee na te loolu ngeen leen di ñaan yëguñ ko sax te ëllëg yowmal xiyaama bu ñu fangee nit ñi ay noon lañuy doon ñay ñaan ak ña doon ñaan te ñañ doon ñaan dañuy weddi loolu borom bi waxaa ne walladina tad'una min dunihi maa yamlikuuna min xitmiir ñi ngeen di ñaan te duñu yàlla moomuñ amuñu sax xitmiir boo xoolee doomu tàndarma mbuus bu ndaw bu weex boobu ëmb ko yàlla ne loolu sax amuñ ko lu ko toll te in tad'uhum laa yasma'u du'aakum bu ngeen leen di woo dégguñ leen walaw sami'u mastajaaboo lakum bu buñ leen déggoon mënuñu leen wuyu wa yawmal qiyaamati yakfuruuna bi shirkikum wala yunabbi'uka mislu xabiir waxaat inna lazina tad'uuna min duunillaahi lan yaxluqu dubaaban walaw ijtama'u lahu wa in yatlubhumu dubaabu shay'an laa yastanqiduuhu minhu da'fa taalibu wal matlub nee na ñi ngeen di ñaan te duñ yàlla mënuñoo bind sax weñ ñoom ñëpp bu ñu bokkoon sot sotdoo jàppalante mënuñoo bind weñ yàlla mu ne même bu weñ rekki woon dara ci ñoom mënuñ koo nangu kon kay kooku ko koy ñaan da'fa taalibu wal matlub kay sàkku lott na waaye kamuy saako ko gën a lott ngay wax sa waxi tappale yi bokkaale gu mag gi ma nettali la moo xam ne seen sëriñ ko wax bu fekkoon ne dëgg la ñor da ngay xam ne lii bokkaale la nga xeex ko waaye dëgg ñorul la waaw gis nga jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi koy jàngale saxaaba yi pratiqué ko bu ñëwee ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ci julli ci moom mooy li ci gën léegi nag comme julli ci yonent bi bunt ñaan la borom xam-xam yi ne mën naa ubbeeku ndax saxaaba yi daan nañ julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yeneen façon waaye xam nga lan moo ko wutalee salaatul fatih bi ñu doon wax salaatul fatih seex daf ne benn salaatul fatih day toll juróom benn junne kaamil alxuraan loolu képp ku ko gëm weddi nga yàlla loolu képp ku ko gëm weddi nga yàlla moo tax ngeen doon tijaan wutee yeneen yeneen yeneen yeneen jullit ñi waxu yàlla naka nga mën a jëlee waxu nit jël ko mu féete ko waxu yàlla